Souleymane Diallo maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay soxna si. waaw Souleymane euh, Diallo nga nekk étudiant en master 1 ca université Amadou Mahtar euh, Mbow bu Diamniadio euh, ñu gis ni fan yi nag coordination des étudiants de l'université Amadou Mahtar mbaw bu Diamniadio ñu ngi doon amal ay mouvement d'humeur mouvement d'humeur yi lan moo ko waral exactement alors soxna si ñu lay jaajëfal bu baax a baax comme ni ko rappelé léegi-léegi coordination des étudiants de l'université Amadou Mahtar Mbow ñoo amal mouvement d'humeur je pense que Sénégal yëpp a ngi ci euh, xam nañ ko Sénégal yëpp yëg nañ ko li ko waral mooy étudiants yi toog nañ ay weer yi bari jàng yu ñu ndax euh, boo seetee ñi si mel ni promotion une toog nañ lu mot juróom juróom-ñeenti weer demuñu école mhm. donc mu doon loo xamante ne koy nakarlu bu baax a baax a baax li ko waral nag lu leneen dootul ak ak ak yéexte boo xamante ne kenn mënu koo fitna kenn mënu koo fir firndeel avancement aux travaux yi nga xamante ne moom moo nekk du campus social. parce que comme vous le comme ni ko xamee campus pédagogique moom livré nañ ko décembre bii passé li des mooy campus social bi nga xamante ne boobu ba léegi étudiants yi def nañ lu nekk mënuñ cee jox étudiants yi daal benn affaire rek lañ li ñuy woote bëgg nañ jàngi te amatuñu temps pour toog di xaar leneen jusqu'à présent on s'est entretenu waxtaan nañ ak ministre. waxtaan nañ ak rectorat waxtaan nañ ak COUS à chaque fois gars yi dañuy jox ay dates yoo xamante ne boobu ba léegi mënaguñ cee mënaguñu am benn date boo xamante ne date bu concrète la date yi joxe woon yëpp épuisé nañ ko joxe woon nañ ci date bi trois mais ci les travaux yëpp di pare. ñu mhm. ñëw trois fekk affaire yi ñu ñu ci njortoon ni dafa sax. eggagu ko moom moo waral tey tey bi coordination démb commencé seen fédéo bi nga xamante ne moom moom lañ tëraloon mhm. mooy pour mu def am benn benn sitting ci biir campus social passer la nuit là-bas et étudiants yi progressivement ñu nañ dëkk fi te la coordination des étudiants bu fekkee ministère taxawul pour dëkkal étudiants yi pour ñu ñu jànge coordination ci boppam moom mooy ñu dëkkal donc euh, loolu moo waraloon tey tey jii suñu mouvement d'humeur te mouvement d'humeur boobu toujours mu ngi d'actualité. jot ngeen euh, waxtaan ak euh, autorités yi ngeen war a waxal yépp est-ce que bind ngeen ay lettres adressées ko ministre de l'enseignement supérieur est-ce que tamit côté boobu def ngeen ci ay jéego. jot nañ nañ raw loolu ndax jot nañ tax amal ay rencontre ak ministère de l'enseignement supérieur. waaw le treize passé amaloon nañ benn rencontre avec le secrétaire te ci rencontre boobu lañ amee date yi ñu doonee date le trois. oui parce que amoon na ay ay conseillers techniques ak ki nga xamante ne moom mooy chargé de tout ce qui est construction du du ministère de l'enseignement supérieur moom moo ñu ne woon les travaux seront terminés au plus tard le trois avril. Mhm. parce que la partie pédagogique ñoom pare nañ bu yàgg pour accueillir les étudiants il ne reste la partie sociale. te partie sociale boobu bu léegi mënuñ ñoo wax date boo xamante benn ci date yoo xamante ne joxe woon nañ ko parce que avant ça amoon nañ yeneen rencontre ak ministère pas le ministre en question mais avec ministère ak à travers à travers ses conseils techniques à travers son secrétaire général à travers son directeur de cabinet amoon nañ ay rencontre yu bëri ak l'autorité concernée mais jusqu'à présent gis yoo xamante ne kenn mënu koo firndeel tey tey kenn mënu koo xayma Mhm. Euh, lan mooy fi ñu toll nii plan d'action bi ginnaaw bi nga xamante ni def ngeen conférence de presse euh, xaw a yëngal tuuti lan ngeen fas yéene def encore pour autorité yi mën a ubbi université bi mu gën a gaawee. le 12 avril tous les étudiants de l'université Amadou Mahtar Mbow vont venir au campus social loolu bokk na ci bokk na ci benn marche boo xamante ne une marche prévue le 14 incha allah au niveau de Dakar. oui donc pour pour on on on donnera plus de précision quand le lieu sera fixé. Mhm. donc ñaari yooyu noonu moo nekk actuellement suñu feuille ak suñu vision. d' accord léegi yan dommage la leen euh, causé yéen étudiants yi seen jàng yan domage la leen causé le fait que euh, date yi leen waxoon ni moom ngeen di commencé euh, yi defoo leen ko lan la leen indil si seen euh, jàng exactement. waaw je pense que dafa dafa plus évident que boo toogee ba mois d' nga jàng c' est plus grave parce que tey tey jii am na étudiants yoo xamante ne bii licence 3 am na ñoo xamante obtenir seen seen seen seen licence pour dem dem ci yeneen marché pour inscrire parce que gis nañu ren étudiants yoo xamante ne ñoom jël licence trois waroon parce que affaire yi yëpp yi amoon ci calendrier universitaire bi moo waral loolu loolu daloon na ci année yi passé bu ñu mu daal ci année bi ñëw loolu benn la am na tamit ay étudiants yoo xamante ne comme ni ma la ko waxee sax toog nañu juróom-ñeenti weer jàmm te loolu je pense que c'est quelque chose d'inacceptable étudiant bi am bac mois de juillet ba ba léegi mu ngi toog mu xaar mu xoole xamul kañ lay jàng jàngi guddi xamul kañ lay kañ lay jàng loolu je pense que tout à fait anormal loo xamante ni mënuñ koo nangu tey mënuñ koo nangu ëllëg. Euh, pour yéen lan moo waral état bi di leen euh, négliger négligence bi lan moo ko waral exactement. donc ils ne sont pas prononcés sur la négligence. ils hmm. ne sont jamais prononcés sur la négligence mais en tout cas une chose est claire. ce que dit l'entrepreneur et ce que dit le ministère est toujours différent ñoom ñaar lañuy li ñuy daal.

par voie de concours la ci duggee et puis nekk na université boo xamante ne concours ngay jaaxee voilà mhm. par par concours lañ ci duggee te nekk université boo xamante ne ay école supérieure la am nekkul ay faculté donc on est dans des dans dans dans yoo xamante c'est c'est plus l'ingénierie qui vise donc ñun mënuñoo toog ci école boo xamante université boo xamante université d'excellence la ba pare di am yenn yéextal ci suñuy reprise parce que am ñun ñun suñuy suñuy référence bi nga xamante ne ñoom ñooy EPT ak ñoom e SP ñoom ñëpp amul kenn koo xamante ne toog nga bu jamono ji te commencé ko te jamono ji on est actuellement le le presque presque en mi avril ba léegi rien n'a été fait on a euh, jamono ji may wax ak yow amul kenn ku mën a taxaw ni la à set date là dinañ commencé. Euh, tey euh, nga ne université bi par concours ngeen fay duggee est-ce que kon déjà dañu tàmbale def concours bi yéen est-ce que dangeen def concours euh, naka la demee exactement waaw premier yi waaw yéen a intégré ek waa université bi dafa am ay yoo xamante ne defoon nañ waaw bi ñu amee nag ba léegi ñoo ngi toog di xaar te jàngi léegi maanaam bépp étudiant boo gis wayante tey jii mhm. concours la ci duggee mhm. mhm. donc ça montre un peu li nga xamante ne moom excellence bi ñuy prôné fii te excellence boobu noonu ñun ñun yi nga xamante ne moom lañ ko nekk di bëgg jàngee nii ndax ni ma prôné excellence ni ma prôné excellence ba pare ñu commencé ay cours ay mois de avril ak ay mois de mai loolu moom mënuñu euh, léegi pour yow tey jii euh, qu'est-ce qu'il faut exactement sa xalaat en tant qu'étudiant pour valoriser enseignement supérieur bi fii ci Sénégal parce que gis nañ ni jafe-jafe yi bari na trop. am na am na mën en wolof oui. Mhm. oui en wolof voilà. Mhm. tey tey jii problème enseignement supérieur problème majeur bi moom c' est un problème d' mm-hmm. la plupart quand on de l'enseignement supérieur au Sénégal le seul problème c' est les diplômes qui sont délivrés ne sont pas des diplômes professionnalisants ça il faut le dire donc euh, pour man problème bi gën a rëy enseignement supérieur Sénégal dans son ensemble c' est le problème de la professionnalisation mm le problème de la profession des des, des, contenus vraiment professionnalisants des, des formations qui sont proposées. Et je pense que on a santé parce qu'on a des formations très très professionnalisantes. Mm. Formation et formation professionnalisante. Mm. D'ailleurs, même de délivrer une licence professionnelle a au lieu de licence académique seulement, une licence professionnelle délivrée. Donc, euh, dans son ensemble, l'enseignement supérieur souffre de ce problème pour moi, à, à mon avis. Mmh. donc daal euh, université Amadou Mahtar mbaw comme niñ ko waxee fekkee defee nañ ko noonu euh, yéen su ngeen fa génnee euh, maanaam am liggéey du leen jafe noonu professionnellement di ngeen mën a apporter lu bëri entreprise yi leen di jël. yàlla l'importance de, de, de, la formation qu'on suit à l'UAE. Mais il faut le rappeler aussi, cette formation, on l'a suivie a Dakar mm -hmm. et les cours n'étaient pas aussi satisfaits que ça. Parce que lorsque l'université à Dakar, wow. ils vont nous donner normalement au mhm. maximum mm -hmm. 10 janvier, les mêmes formations. Oui. D'accord. Donc, voilà, juste, juste, jusqu'à jusqu là, les gens qui ont même suivi comme information. ne peut pas maa ngi lay remercier ci sa disponibilité. maa may fàttali ni étudiant nga en master université ca université Amadou Mahtar euh, bu Diamniadio. exactement exactement. Diamniadio. exactement